taalibe baay la Adji Sarr musta am jëkkër musta am doom jamono ji li nga xam ne moom lay sàkku justice bi def liggéeyam ba doomam ji mën a féex waaye nag moom bàyyi Adji Sarr nee na mbir mi daal bu aju woon ci moom rek jamono ji kenn tuddatu ko lépp tëj nañu ko ndax ñaari jullit ñoo jotee te bu ñu jotee nag jamono ji li nga xam ne moo jaadu war ñu dox ci tànki jàmm yéen kaay gi ba tey moom bàyyi Adji Sarr nee na nag ñenn ñi nga xam ne ay journaliste lañu am na nee na noo xam ne traité nañ ko dossier bi loolee baaxul ci réew mi ndax bépp dossier boo xamante ni am na anam boo xam ne boo ko réew war nga see mën a tey moom bàyyi aji saar ci biir journal bii di réew mi quotidien nee na nag ma ngi sàkku ak njéggala ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ma ngi koy demander pardon ak askanu Sénégal gi yëpp yéen kaay gi de Les Échos ñu koy fekk fa François Hélène Gaye mi nga xam ne moo jiite kuréel gi nga xam ne ñooy tuba yu aji saara ni ki démb janoon ak tas ko du xabaar yi na musiba ak mbelengana nga na ki nga xam ne mooy aji saara yoon def liggéeyam yéen moomee wax ci université Cheikh Anta Diop bu coow li nga xam ne moom lañ fay faral di nemmee ko ko violence yi nga xam ne bëri na fa lool léegi journal bi xëy sambab laaj na màgget seen mi nga xam ne moom la ñuy dénk kuddo est ce que nag am na dayo boo xam ne war naa mën a jiite kuddo ndax jamono ji nga xamante ni Abdoulaye Sow ma nga fu woona lii nga xamante ni mooy violence yi amu fa journal bi nee na moo taxit étudiants yi réccu nañ bu baax a baax Abdoulaye Sow mi nga xam ne moo nekkoon kuddu te ñu daal di ko fay jëlee yéene kaay gi délibération xëy di ñu xibaar nañu évasion bu ne def na ko yéene na am na nag ñoo xam ne ñoo jàppale Boy Djiné ñu nekk ci biir kaso bi moo taxit ñi nga xam ne ñooy waa section de recherche am na ñett ñoo xam ne teg nañu leen loxo ci ay garde pénitentiaire journal bi nee na information judiciaire la ñu ci bëgg ubbi yéen kaay gi di réew mi quotidien juboo gi nga xam ne Aminata Touré juboo na ko ak Macky Sall gisante bi nga xam ne gisante na ko Assane Samb xëy na wax ci xalaatam nee na la Sall jamono ji ak élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal lenn kese rek dong la bëgg mbooleem koo ne gis na ne man nga koo amal njariñ mu jël la taf la ci wetam te nag jamono ji li nga xam ne mooy opposition bi dañoo xabtalu te askan wi ñoo tax ñu xabtalu opposition bi tamit dañuy sukkandiku ci jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal am na ko ci lu jëm ci wàllum économie Covid 19 bi loolee moo tax nag Macky bu deful attention tuuti dina ñàkk ay communes yu bare bare Macky nag journal bi nee na ma ngi dajale ay leader am ndànk-ndànk yéen a kaay gii di laas nee na mboolem ñi nga xamante ne ko frustré nañu mer ci biir benn bokk yaakaar Macky Sall dina waxtaan ak ñoom ginnaaw Aminata Touré Mohamed Boun Abdoulaye ak Aliou Badara Le Quotidien ñi nga xam ne nag ñooy ay femme leader ñoom nag soobu loon ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee nañu téeméer boo jëla fukk ya yépp dañoo bëgg mu nekk ay yoo xam ne jigéen la ñuy doon yéene gi di ñu fekk fa Adji Mbergane Kanouté nee na nag candidat la gi di Rewmi na musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Adama Faye nee na Adama Faye bës lay wut waaye nag dañu ko war a yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mbokki Macky Sall yi boo muy moytuwulee ñoo nar a andi ay jafe-jafe ci biir benn bokk yaakaar ndax ki nga xam ne mooy Mansour Faye ca diwaanu Saint-Louis ji ma ngay giita ngaasa ak Mary Teuw Niane Aliou Sall ca Guédiawaye ma ngay nag giita ngaasa ak Seydina Fall Bouga ki nga xam ne mooy Adama Faye jamono ji nag daan na rëbëje fi nga xam ne mooy Grand Yoff moo taxit journal bi nee na Cheikh Bakhoum daan na koy tonto yéen kaay nekk ci poste ñoom nag ñaawlu bu baax a baax maanaam gestion nébuleuse bi Abdoulaye Bibi Baldé di doxee journal bi nee na en tout cas li am sala liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk poste ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax ñaawlu a bon wi nga xam ne moom la Abdoulaye Bibi Baldé yore kër gii di poste yéene gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu accident yi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg ci réew mi Makhtar Faye mi nga xamante ne expert la en sécurité routière nee na li nga xam ne mooy permis à point bokk na ci li nga xam ne war naa mën a